technology and the, the engineering programs. And as such, um, a lot of contacts had been made during the, during, the, during the meeting, which we are surely going to follow up on to make sure that we access um, opportunities for our own girls in the Gambia to be able to be mentored by specialists in those areas. Um, from the meeting, we discovered that there are over 1 million mentors and we also made a request. Um, they are not in Africa yet, and they're beginning to move towards Africa. So they're starting with South Africa, and we made the request that they make Gambia the second country because it's a small country yeah, and they can they can use Gambia to compare what happens between this small country and a bigger country in terms of you know uh, uh, running programs related to science, technology, engineering, and mathematics. But there too gathered few disgruntled individuals in what resembled a protest. And even so, their approach was woefully wrong, and they didn't get the attention of anyone other than themselves. Giate spoke to few of them, starting with Warren Lamin Job. Mangi stay New York. New York. Mm in front of the permanent mission. right muy dëgg. lan ban ngeen am buñ am. actually depuis ñu jàppa Babali ñun ñu ngi doon soo doon dégg si UN bi ñu ñoo fa nekkoon di wax ne ñu inscrit Babali añ ko bàyyi añ ko charge ak yu ko nuru tey lu ma la mën a expliqué naa billaahi bañun Yaya Jammeh yow yow man óor na ma ne maa la gën a bëgg Yaya Jammeh ànd naa 2004 li ma def. waaw waaw boo nee yaa dama la wan ne la ne man citizen boo xamante ne laa dama kilim. bu ko doon right ok cool then fine. yaa ngi maa dégg maa ngi laa wan ne rek suma right pour ma as citizen lu ma war a mun a def pour ma lii suma anga yaa maa dégg so ñii ñëw nañ fii nii xëy na ñee nag xamuñ lanay protest waaye man xam naa la protest protest du xaya proteste du saaga ndey bi ma juddoo ba léegi musuma saaga nit musuma saaga nit di rusal naa ko suma deret musuma ŋaaña nit du ma ko def wante am naa right as a citizen léegi léegi ma demee boor léegi léegi ma agree ma disagree with a government bi ma demee ba mënuma ànd ak government bi dama demee boor waaye lu tax mënuma ànd ak government bi ba tey ndax bëggoon nga ma àgga si lu tax mënuma ànd ak government bi mooy freedom of speech dafa xaral limit in the country in the Gambia te loolu ñun gisal nañ ko suñ boppa nit yi war nañoo mën a tasaaroo di wax seen xalaat yéen ci seen boppa government bi Yaya Jammeh si boppam di xool loolu di mun a xam right di mun a xam lana wrong di mun a rectify lo waaw go ahead so mu ne soo waxee freedom of speech mm. what are you mm. wax lan lu mel naka ma like like the press lu you you could ask man I'm free to to yes obviously obviously oh, waaw man in past yes waaw mais bi man maa ngi fii nii ñu maa woon loo xamante ne xëy na nekkut. waaw waaye noonu nga ñëw Gambia nga find because man seven years maa ngi liggéey and then I can personally stand here and say I'm free to say anything I want to say. dinaa def loolu bu neexee yàlla dinaa ñëw Gambia ma find out loolu tamit dëgg la. xëy na dëgg yaa ngi protest blindly then. non non non non protest ma blindly now now. fooguloo ne yéen balaa ngeen a just dégg information ngeen ak di lifin how bad ngeen try to harm man bi. ñu xam ko waaw because nit ki foog naa balaa ngaa against war ngaa xam looy against. am just asking. waaw loolu wax nga dëgg ba tey mus naa koo wax mus koob bu bon indi US ya ndax koob yu bon koob yu police waaye ñu bon ak seen biir nit yu bon ak ci seen biir i doomi ñu nga xamante ne dañ dee def nit yu bon sax nit waxuma sax ay koob yaa raay am na fii am na fii am na fii am na ñoo xamante ne sax nekkun i koob dañ nekk nit yoo xamante ne dañ jos nekk civilien yoo ko jékki-jékki rek mer jékka si biir nekk def yenn façon yi ram bon fi lu mu nit lu bari te dara du fa xew dañ ñoo ñi mu dañ ton seen leen yow. Words went round quickly and these pictures were posted on Facebook but the Gambian leader arrived home to this. a spontaneous welcome parade marching his convoy all the way to the State House in an explicit language we leave you to interpret. Thanks for your company. One, two, one, two.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 di wax alhamdulilah di gërëm yàlla suñuy borom saa su nekk moom mi nga xam ne moom mun lépp am lépp di kontaan si gars yi si view hotel kontaan si Gamsal ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk suñu main sponsor si si RLG ñoom ñi nga xam ne ñoom tam jàppale nañu bu baax comme ni ngeen gisee tablette bi nii képp koo xam ne mu ngi seetaan bugg a si ah, tablette bi rek mun ngeen a dem opposite Juma pipeline bi ak mobile phone si ngeen seet gars yi foofu noonu ci seen head office bi thank you very much Unique Solutions ñoom ñi nga xam ne ñoo provide internet bi nga xam ne moom leen di use di um, upload suñu episode si online thank you so very much waa Gambia ñi nga xam yéen ñu téye you know appreciate show bi a whole lot amuñ seen fay we cannot do it without you guys and also dama fàtte the whole BNL crew uh, fu mu nekk nii right now duñ defati dara lu dul am euh, di leen ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan bu leen faate pour dem on Facebook ngeen am type night Nightlife ngeen like suñ page bi foofu noonu way over 7000 likes and still counting am euh, benn at rek la BNL amangum fu mu nekk ni right now waaye ñu ngi leen a sant di leen gërëm ñu ngi wax abaaru benn at buñ am bu leen faate ñu ngi celebrate suñ one year anniversary on the 4th of October 5th ak 11th on the 4th ñu ngi dem Sun Swing Hotel Tickets si 100 dollars sila. on the 5th ñu ngi dem ba Banjul Atlantic Hotel on the 11th You get a ba Brikama Joko Gambian artistes yu am headline in arts yi Manding Mori am nañ Jalimari am nañ ST ak yeneen yeneen yeneen i um, show bi like I said Banjul Night Live um, ñu ngi just am one year ñu kontaan nag di celebrate li nii di wax képp ko xam ne mu ngi seetaan ngeen support si ngeen support ñu am ngeen to celebrate ak ñun because one year lañ am te um, tickets it's very reasonable um, $100 is Sun Swing $100 is Atlantic Hotel Moy on the 5th and then $50 si Brikama Joko right now Gambia come niñ ko di faral di defee rek yéen ñi nga xam ne yéen a nekk suñu fans si outside of the Gambia and ñi nga xam ne ñu ngi si biir Gambia da ngeen di faral di send send messages si si suñ Twitter page bi and Facebook and also si suñ episodes yi nga